set set si sa yaram ni set set si sa waxoo ni set setlu sa àndandoo yi ni set buñ ko defee ni set buñ ko deful ni set setoo yi mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu bi te ànd bi déglu rajo Futurs Médias dañu yegg ak yéen ci daan waxtaan waxtaane daal li nga xam ne moom la situation bi tëddee ci gox keeg goxaan yi ak taxawaayu relais communautaire yi ko wax nag relais communautaire di nga wax nii di bàjjeni gox ñu ngi ci jokkoog bi ak ndey faatu Diallo jiite leen moom mooy présidente nationale des bàjjeni gox maa ngi lay nuyu soxna si Ndeye Fatou Diallo. maa ngi jërëjëf ci euh, wuyu bi ñu ngi tam ci euh, ligne bi ak euh, suñu ndaw foofee ca Touba Mbacké di Mariama Diop Mariama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ana waa Touba. ñu ngi alhamdulilah. dañ koy tàmbaleeg soxna si di Ndey faatu Diallo waaw yow mi jiite ñii di bàjjenu gox yi taxawaay bi ñeel mbas mi boobu ba tey. ñu bëri dal gis ne euh, ñu ngi bàyyi seeni loxo euh, ci lu jëm ci xeex wi maanaam xeex lii di coronavirus euh, demoon nga Touba Mbacké foofu tam ku wax Touba rek wax mbooloo seen taxawaay foofu nan la fa demee woon. waaw maa ngi nuyoo. di nuyu waa RFM Matin. Hmm. di nuyu kilifa aada yi ak kilifa diine yëpp di leen ziar ci màggal gi. waa ni nga ko waxee rek ñun xeex mbas mi dañ ci yàgg. depuis 2 mars ñu ngi sur le terrain avant boobu sax Covid 19 bi ñëw nag ñu gën a nag daasaat nag dugg si terrain bi di waxtaan ak nit ñi kon avant màggal gi daf ñu cee fekk dañ doon sa laat rek waaw ndaxte fu mbooloo di tase war ngaa jël say jumtukaay te comme macha allah tubaarkaala masque yi bare woon nañ fa gel ya bare nañ fa. ñuy waxtaan ak nit ñi rek. waaye nag ci màggal bi la gënoon métti ndax màggal moom xam nañ ne il fallait que yëf yi gën a ngeen gën a taxaw parce Euh, takk woon na lool ci mbooloo. macha allah kay mbooloo mi la ndax booy seet boo ko comparé àddina la ñëpp ñëw te ku nekk ak sa jikko ak sa taxawaay kon foofu la gënoon mette waaye nag acteur communautaire yi liggéey nañ ci liggéey rafet dëgg yàlla ak bàjjenu gox yi ndax ñoo nekk ci gox yi ak gox goxaat yi te ñoo gën a jege ñi population bi. ndax amul ndax amoon ngeen jumtuwaay yu mat sëkk ngir amal seen liggéey. jumtuwaay daal dañ ko fa fekk ndaxte ku xool télévision Futurs Médias sax da ngay gis ne ne masque yi tubaar fa kàll presque société bu nekk indi nga sa wàll loolu tasaare nañ ko te macha allah comme këru diine yi daal bala ngaa dugg takk masque ah te taxaw nañu itam taxawaay bu am solo jàppale nañ ci côté boobu ak jumaa bi kenn du fa dugg te takkoo masque kon dafa daal mel ni euh, xalif yi foofee ca Touba Mbacké ñoom ñoo gën a yombal liggéey bi ndax ñoom ñoo njëkk jël seen matuwaay ñoom seen bopp kay kenn du dugg seen kër te takk ko masque mhm. wala raxasuwoo te mhm. loolu moo ci am solo moo ci mhm. dalal xel bien que du duñu takk masque comme Dakar rek comme Dakar rek li ko wër rek waaye comme jumaa ji fa la mbooloo may dem te nit du dugg te takkoo masque ah loolu tam ñu sant ko yàlla sant ko sëriñ bi ndax moo joxe exemple bu baax dina ñëwaat ak yow ci euh, taxawaay bi ñeel yeneen gox-goxaat yi waaye dañu euh, ànd ak suñu ndaw euh, Mariama Diop maa ngi nuyu. maa ngi euh, gi jeex na yow bokkoon nga ci ndaw yi RFM yi foofee ca Touba Mbacké ngeen amal fa liggéey bu am solo bu mucc ay macha allah yéen ñi nekkoon ci terrain bi ban constant ngeen def rawatina sax jamonoy màggal ak ñi nit ñi doon moytoo lii feebar bi. dëgg la Seydou constat bi ñu def mooy défi la woon ren màggal bi te mën nañu wax ni défi relevé la loolu moo mën a nekk constat bu njëkk ndax dañ doon wax màggal ak Covid 19 muy mbas ni mu nekk loo xamante ni difficile la mais les gens ont répondu euh, à l' appel du xalif général des Mourides muy Serigne Mountakha Mbacké Bachirou ndax yaakaar naa ne moom moo nekkoon exemple bi nga xam ne moom la ñëpp doon roy ci respect yi nga xam ne moom mooy mesures barrières yi ba tax comme ni ko bàjjen waxee sànq rek li nga xam ne moom mooy jumaa ji muy grande mosquée bi nga xam ne ñëpp fa lañ doon dem muy fulu bu mag boo xam ne nit ñi foofu lañ doon dajaloo les gens respecté nañ ni nga xam ne mooy dispositif sanitaire bi muy doo dugg te solo masque muy def def lañ fa ab dispositif lavage des mains boo mënu raxas sa loxo nga jël li nga xam ne moom mooy gel antiseptique nga def ko fi nga xam ne mooy kër kilifa yeneen diine yi ko wër muy kër sëñ Fall muy kër sëriñ Sall muy résidence Khadimou Rassoul mhm. mu yeneen kilifa yi nga xam ne sax nekkuñu ci biir Touba te ñu génn defoon nañ fa tuur respecté nañ li nga xam ne mooy dispositif sanitaire te yaakaar nañ ñooñu ko respecté rek ñun nemmeeku ko foofu lay mel ne nemmeeku nañ ko ci kër yi nga xam ne moom moo nekk ci Touba yëpp ay la yooyu nag mënuñu wax c'est à cent pour cent parce que dans la rue gis nañu y a des gens yoo xamante ni soluñu woon masque yi doo leen ko mën a reprocher parce que doo xam yan pathologie la ñuy développer seen mhm, yaram mhm. doo leen ko mën a exiger doo xam lu tax soluñu ko mais dans le sens général daal li ñu mën a remarquer mhm. mooy que ni satisfaction la ñu am ci màggal gii nii muy le respect du port du masque muy le respect des mesures barrières te que les résultats l'ont montré parce que gis nañ li nga xam ne unité bi unité euh, d'alerte bi liñ wax démb. Mhm. voilà donc ci boma ma ci ci lima ma gis moom mooy que ni am nañ satisfaction bu baax a baax ci magal ren gi et que région respecté nañ li nga xamanteni mom moy muy mesure barrière bu ñu jëlé exemple fi nga xamanteni fa la danger bi nekkoon muy jumaaje muy kër kilifa diine yi. waaw satisfaction sax euh, maré mom moy euh gannaaw euh, magal bi unité d'alerte bi daal dafa sax wax ne ben cas code la ñu am kon lolu vraiment satisfaction la. satisfaction. information bu am solo la parce que benn cas boobu sax yaakaar moom sax dañ doon xaar mu bañ a am ndax bu xoolee <laughs> agent sanitaire yi euh, ni ñu jógee woon ci màggal bi parce que boo ne hôpital Matlaboul Fawzeyni bi nga xam ne moom mooy référence ci diwaan bu Touba ci seen point de presse bi defoon wax nañ dinañ cinq mille agents sanitaires yoo xam ne dañuy bawoo ci gox yeeg goxaan yi ñëw dajaloo fii ci Touba ñu gis ne unité d'alerte ak prévention épidémiologique xoolee ressources humaines bu jumaa ji cinq mille personnes ñu xool ressources humaines ñi nga xam ne dañu bawoo di yeewoo ci kër kilifa diine yi yor gestion kër kilifa diine yi hmm. donc c'était attendu à ce que ñu am résultat bi muy benn cas boo xam ne moom lañ testé euh, ci màggal bi te kooku sax ci euh, dernière information yu ñu am euh, avant ñuy di dugg ñu ngi waxal ni état de santé tànn na bu baax hmm. parce que defal nañ ko benn prélèvement mu négatif donc beneen rek la ñuy xaar dans mu mën a génn kon mën nañ wax ni loolu lu am solo la mhm. bien vrai que nag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram comme bu Bousso démb bi ko a jëlee xam ne na ne mënuñu jël résultat màggal gi yëpp fii ak 14 jours jotul parce que mhm. xam nañ ni évaluation Covid 19 c'est dans 14 jours donc dañuy xaar euh, temps bi dem ñu gën a mën a évoluer màggal bi ak li nga xam ne moom mooy mbas mi nga Seydou Nogo jaajëf Marème dama lay bay rek xam na am na benn liggéey bu lay xaar jërëjëf Seydou di la mm. jaajëfal ba baax di jaajëfal aussi suñu bàjjenu gox di wax mm. ne aussi ñoom seen taxawaay rafet na trop macha allah ci ci ci ci liggéey bi parce que relais communautaire yi ak jeunes yi ak waaye politique yi mm. wane nañ ci màggal bi que ni euh, bu danger ñëwee wala bu mbas ñëwee dañu war

am Touba dafay rek woné ni euh lu tubab di wax qui veut peut bo bëgg rek da ngay mën parce que tamit euh, respect euh, mesure barrière yi ak liñ fa doon wax ak cadre xalif général bi nga xamné danaka daanaka ñëpp ko respecté ndax japon li da fay rek woné ni bu ñëpp takko and dañu daan euh, dañu daan fever bi. waaw monsieur Ba li nga wax li moy dëgg li daal di ko wara continuer. ñu ko continuer waxuma mbass waaye feebar bu ñëwati daanu ko daan hmm. ndax wax dëgg yàlla ñuy faj sonn noonu di gërëm de passage docteur Ndeye Maguette Diop bi nekk district hmm. bu Touba dëgg yàlla yaatal na bàjjen yi jàppale na leen jàppale na acteurs yi ndax nit dina bëgg liggéey te ki nga xamante ne moo jiite du la yaatal waaye moom ba mu fa ñëwee ba tey dafa ànd ak acteurs communautaires yi muy bàjjenu gox yi muy relais yi ci liggéey bi macha allah tubarkàlla hmm. di gërëm sëriñ yi man am na foo xam ne bu ma demee ba ma fa demee damaa tiit muy sama mbokk Baay Faal yi ñoom a gënoon jaaxal te ñoom vraiment li ñuy def li ndax sëriñ bi bu mu ñëwee rek na asalaamaaleykum dafa ne ana seen masque xam nga yooyu yëpp mhm. macha allah tubarkàlla day yomba liggéey mhm. ndax nit ki mën nay faj waaye ki muy faj ki tamit bu xamul ne ne fajkat baa ngi fi gëmul ne lii moo am kooku mënut a def leen non noo gisee Baay Faal yi noo gisee seen taxawaay Baay yi Baay Faal yi wallaay macha dañ maa bett sax hmm. sëñ mu ñëwee rek xiin yéeg yëpp di kii maa ngi taxaw ci angle bi di mm-hmm. xool mm-hmm. te bi mu ñëwee li mu njëkk a wax ana seen masque mm-hmm. ma ñu commencé génn masque yi ku takkul woon sax takk xam nga loolu image bu baax la du dëgg moo tax nit daal day am kilifa te daal am na loo xam ne bu ñu ko bëggee nañ koy jaarale ci kilifa yi ci biir kër yi muy jigéen ñi kilifa aada yi ak kilifa diine yi loolu c'est important ndax màggal gii daal macha allah tubaarkàlla lu dul sant rek ndax benn cas boobu mën naa am sax dañ ko caa fekkoon. Mm-hmm. du dëkk. Mm-hmm. te yaakaar naa ne yàlla mën nañu suturaa. Mm-hmm. ba niñ ko xalaatee woon du ñu toll d'ici quinze jours. gannaaw aji allah waaw loolu moom xam naa dañu rek euh, croiser les doigts di am yaakaar ne léppay baax bu soobee yàlla waaye tam gannaaw Touba yeneen gox yi yow mi di euh, présidente bàjjenu gox yi. Euh, ci yeneen gox yi goxaat yi ndax yaa ngi amay xibaar yaa ngi jekkook relais communautaire yi ndax aussi amul parfois ñoo xamante ne dañu wax ne du ñàkk ñoo amay. Euh, problème euh, peut-être déplacé wu pour dem di xool askan wi ñaax ak ñaax leen ngir ñu moytali ko mbas mi. waaw xam nga loolu mënul ñàkk ndax booy seet district yi ak poste de santé yi ci àll bi dafa soreyoo xam nga dakaar li nga mën a jóg rek dem fenn wala sax Touba diggante ba xaw naa xëcc waaye ñoom ñu koy kii wax dëgg yàlla ndax nit ki su bëggee rek day def wax nga ko en français su mhm. bëgg rek da ngay jéem te soo jéemee yàlla dimbale la waaye loolu moom ndax boo génnee rek si Ziguinchor bi wala Tamba wala kii dugg rek seen distance yi dafa sori. Mhm. wax dëgg yàlla du ñu am sax moyen bu ñu kii mhm. waaw waaye nag comme nouvelle technologie yaa nga fi. Mhm. ñun dañuy jokk ak ñoom bés bu nekk cinq cent cinquante cinq communes yi nekk ci Sénégal ak euh, quarante cinq départements yi dañu am groupe. situation yëpp bala maa tëdd lépp dinaa ko xam macha allah tubaarkàlla. Mhm. may gërëm bàjjen gox Sénégal yi. kon daal kon daal yow bés bu ne daal. yaa ngi ci liggéey bi di laaj ay information loolu tam liggéey bu métti la de xaw na métti de. liggéey bu métti la yenn saa yi sax. ma mhm. tëb dem ci benn région. tudd ca poste yëpp. Mhm. dinaa def loolu. donc yow daal te obligé à chaque fois di jot téléphone di leen woo. di jëlee information bala nga tëdd nga am conclusion yëpp. waaw ñoom it dañ may woo wax dëgg yàlla. yombalal nañ ma liggéey bi man it damay dem. sax mm-hmm. tamit boo jiitoo ay ni da nga leen di nemmeeku. Mm-hmm. parce que dem mu maa ngi woon yëmbal. Mm-hmm. yëmbal. waaw. àjjuma ba si ki tey. maa ngi fa ba ba seize heures. dix heures ba seize heures fa la ma fekk du dëgg. dañu lii dañ gërëm de passage te lépp rek xeex rek lu jëm rek ci feebar bu mu mën a doon rek. ndax xam nga Covid rek amu fi ci buru bi mu ngi ñëw. ndax ndox mi dafa bari. rawatina rawatina ren ji ndox bi da bëri na trop sax ren ji mm-hmm. ak jigéen yi nga xamante ne dañuy wand la te nangootuñu dem opital mm-hmm. ñun suñu liggéey dafa metti mm-hmm. ak maladie chronique yi li jëm ci tension ak diabète te nangootunoo dem kon ñun ci lépp la ñuy wax yàlla daal moo nu ko teg ñu nangu ko nag waaw di ñaan rek situation bàjjen yi acteurs yi gën a amélioré rek ba jóg bee yooyu yëpp di yomb incha waaw di gërëm nag personnel de santé yi ndax lu ñu xam ñoom la du dëgg mm-hmm. ñooñu ñooñu tàggat ba ñu mën a wax ak nit ñi ndax communication mm-hmm. moo yore lépp ni ngay waxee bu neexul. Mhm. xamoo li ngay wax. dëgg la ah foog naa ne doo fa jëlee xam-xam. doo mën a wax ak nit lu am solo lu am solo. lu am solo la ci ne. effectivement kon maa ngi gërëm yëpp nag. yow it vraiment di leen ñaanal di leen gërëm mhm. la macha allah yow it vraiment jaajëf parce que ba nga la ba mu lay woo démb yaa ngi jóge Touba sa baat bi woon nga sonn lool sax yow it ma ngi lay jaajëf bu baax a baax. ci vraiment ah, pas-pas bi noonu la sama warugar la. waaw vraiment matal nga ko man askan bi rek ma fi bàyyi. jërëjëf

Mm-hmm. bàjjenu gox yi ak rime communautaire feebar bu mu mënta dugg si biir réew mi ñoom dañ ciy dox seen kéemtulaay kàttan ndax Sénégal moo leen ko jaral ba dugal les âges de Sénégal ñu engagé wu nag nekk ay doomu réew mi ne dañuy dugg ci biir réew mi jàppale ñi nga xamante ne population bi muy police de proximité. Mhm. kon tey à l'heure actuelle daa gën gox yi ak ñi nga xamante ne police de proximité président ak euh, délégation ak gouvernement war nañ leen mën a jàppale ba nga xamante ne askan bi gën a mën gën a gis am na keneen ku ci ligne bi rek euh, ñu wéyal waxtaan wi asalaamaaleykum. amagul kenn ku nekk ci ligne bi ñu rek xaarandi kon ci 88 628 14 14 ñu jox seen i xalaat euh, ci euh, loo xam ne dafa njël mbas ma salaamaaleykum am na kenn ku nekk ci ligne bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. waaw maa ngi ziar. delloo ziar bu baax a baax. maa maa jot ñëw la depuis Thiès. ana waa Thiès. di nuyu mon frère Boubacar Diarra ambassadeur Thiès boobu. mu ngi yàlla mu ngi def lu rafet. ci intervention maa ngi koy félicité di ko encouragé. waaw di nga wax nag euh, ci mbas mi wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar. Hmm. waaw parce que boo xoolee par rapport ak euh, li li li am Touba nii xam nga hmm. ak def si ñu def ci malheureusement ñu def benn cas te j'espère que fa lay yem. en hmm. quinze jours daan benn cas parce que nit ñi wax dëgg yàlla respecté nañu mesure barrière masque yi wax dëgg yàlla gars yi nañ ko à exception près nga gis ñu takkul masque peut-être dañuy dañuy étouffé wala yooyu. wax dëgg yàlla moom masque yi respecté ba dans ñu gën ñu wax nit ñi rek ñu bañ a bàyyi seen loxo continuer xam nga ba xeex feer mu jóg si parce que feer bi économiquement instant yi plombé na suñu économie wax dëgg yàlla ñu ñu nekk ci école privée yi sonn nañu xam nga ñi ngi nekk nekk économie ay en actuellement ce n' est pas le moment de baisser les bras mm-hmm. actuellement moment moment bi la ñu war a gën a fas jom gën a góorgóorlu ñu gën bañ a découragé ñu ñu jàppale suñu chef d' entreprise ñu fexe redresse entreprise di sant di gërëm jaajëf jaajëf jaajëf euh, yéen naa ñëpp di wàccee sabdu cam ñu wéyal waxtaan bi ci 88 628 14 14 joxe rek seen i euh, xalaat euh, ci lu jëm ci mbas mi tolluwaay wi ak tamit pas-pas bi nga xam ne Euh, war nañ ko gën a amaat ngir rek euh, ñenn ñi daal di ñëwaat maanaam ñu bëri dañoo bàyyiku woon ndax dañoo jàpp ne daal ñu bëri sax nga dégg ñu wax ne euh, yëf yi daanaka jeex na déet jeexul tey lañ ci war a gën a taxawaat ci 88 628 14 14 88 628 14 14 bu dee am na kenn ku nekk ci ligne bi amagul kon ñu xaat tuuti. set setoo oh, yi ñu set. seet sa xel am na kenn ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw ñu ngi lay nii du pare man la Mamadou Mata. daan di nuyu groupe Futurs Médias. ñu ngi lay ziar. rek vraiment bi daal waaw man daal li nga xam ne ma ko ci wax mooy xam nga feebar. wax hmm. nekk feebar mu nga xam. su ko lëmee àdduna bi yëpp du Sénégal donc ba tax na euh, wax dëgg yàlla am dégg dëgg diglee docteur li koy saafara def ci am solo hmm. waaye feebar nag nañ sant yàlla ba euh, def nañ màggal ak daf salaam ba euh, buñ ne amul amul amu fa loolu dafa nekk lu solo am solo hmm. parce que wax dëgg yàlla am ndax mooy màggal dafa nekk lu xam lu am doole ndax suñ tubaa danañ sant le ma suñu borom hmm. suñu ndax mooy borom lépp lépp lu nekk di sant yàlla bu baax a baax waaye dama ne mu ñi nga xamante ne bii dañuy dañuy euh, feebar bi da nga xamante ne bii dañ ko am. Mhm. allo. oui maa ngi dégg bu baax a baax. maa ngi dégg bu baax a baax. waaw waaw ne feebar yi nga xam ne dañ ko am. Mhm. ñoom tamit nañu nañu gën di moytu nañu gën di moytandiku tamit euh, wax dëgg yàlla euh, moytu bëgg wàll. waaye nag tey da nga am loo sax da nga su ko defee yow mhm. da da ci mën a mucc bokk doo ci a wàll kenn ndax feebar moom bu la dalee. Ah, day kii mën na monté ba gën la sonal waaye li ci gën a am solo day am solo mooy ñaan yàlla feebar bu jógee fi te ñëpp ñi ngi ñaan te wax dëgg yàlla côté ministre ngi def seen liggéey président de lépp lu nga xam ne li mat faay jël na lépp def na ko ànd ci ak ministre leen tëddee Aliou Ngouye Ndiaye bu rafet bu nga xamante ni vraiment dañ ci ciy jaajëf bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf Modou Medor euh, ñu ngi soxeetuñu ci waxtu wi bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi Abdou Thiam ñu Euh, tëj fa waxtaan wi ñu ngi ci 628 14 14 88 628 14 14 waxtaan rek ci ba tey ci lu ñel mbas mi euh, ubbi antenne bi encore joxaat euh, askan bi seen xel salaamaaleykum am na kenn ku nekk ci ligne bi allo dafa mel ni dem na Abdou Thiam ñu xaaraat keneen. bu dee am na kenn ku ñu mën a amaat laata ñuy tëj waxtaan wi ci 88 628 14 14 88 628 14 14. am na kenn ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar bi waaw naka mu. waaw dafa naka suba si. sant bu baax kay Adama Dieng. Adama Dieng fay woote. Touba Mbacke. ana waa Touba. baax kay alhamdulilah. alhamdulilah bisimilah ci waxtaan wi. vraiment ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax. loolu passé rek nga bëggoon passé ci débat bi. Hmm, bisimilah ak eh, plaisir. allo Seydou Seydou sa retour bi teewul xam naa ni ma lay dégg amul doole. waaw est ce que tamit eh, amul rajo bu sa wet wala fi nga nekk daa a tëju. xanaa hmm. ma déplacé. waaw voilà surtout comme yaa ngi may dégg rek baax na. waaw yu dégg bu baax a baax. ah, ah ok merci. bisimilah bon bon par rapport ak débat bi mu ci situation corona bi ak fi mu toll ci réew mi vraiment di sant yàlla maa ngi di gën a ñaax Sénégal yi rek ñu gën a góorgóorlu mhm. ba épargne ndax it kenn ku ne xam ne feebar bi bu doy waar la te comme feebar bu bees la te maîtriser wuñ ko bu baax mhm. dañu topp rek ndigalu kër docteur yi jàpp naa suñ ko defee rek euh, résultat dina am surtout vraiment di jaajëfal xelal général des Mourides nag mhm. xabaar yi nga xamante ne am na ko ci mbas mi wax dëgg mi ñëwee ba yëkkati alalam def ci ba pare communiqué ba pare jëfe ko ba ñëpp gis ko. amul mhm. fenn foo xamante ni di nga fa gis xalifa bi te doo ko fekk mu takk mas. loolu taxawaayu kilifa la. yàpp naa ne loolu exemple la. Mhm. waaw taxawaayu kilifa la. Mhm. exemple bu rëy a rëy la joxe. kooku nag képp koo xamante ni sa kilifa la da war a góorgóorlu ndax dañuy wax ne ku am kilifa ku mat kilifa da ngay góorgóorlu. Sëriñ wax dëgg yàlla mat na sa kilifa. bu loolu jàllet may ñaax ñi nga xamante ni dañoo am maladie chronique yi te bañ a daw hôpital yi nga xamante ni dañu toll diggante ñu dem jëli seen visite xale yi nga xamante ni dañu toll ji ñett leen ñu leen yóbbu ñu di leen nag surtout te bàyyi wax ji ñi nga koy wax naan soo demee hôpital dañu lay téye dañu la ci ñuy corona yi ay faux mhm. ay la loolu amul solo effectivement mhm. ñu respecté docteur yi wax dëgg yàlla te di leen jaajëfal te mhm. xam ni wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na trop mais daanee rek di wax ni corona bi bar na duñ ci war a mën a jàngatee ndax yaakaar naa jàngal na lu bare bëri àddina bi te ji bu demee ba mëna jël système mu dina travail seyd nooru mëna tok kërëm mëna def liggéeyam lépp. ci jëf ci futur média. loolu loolu grâce à coronavirus. di nga xam ne tamit lu mel ne autosuffisance en riz war nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax ndax it kenn ku nga xam ne tey ji bu nee ba avion dawatul ñëpp tëj seeni frontière kenn ku ne di dundee la nga bëgg ci sa réew. kon jàpp naa ne loolu tamit corona bi jàng bu ne ci bëree bëri. si isaas gii amoon ci oto yi nga xamante mhm. ni ba bëccëg foo dem ñu tegal nit ca benn oto. ñu jël ci benn banque te loolu lépp corona bi jëlee woon ko fi loolu corona bi wuru tax tamit ñu bàyyiwaat ko nañu fexe baax a baax di félicité vraiment président Macky Sall ndax moom Sénégal am taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci mbas mi jërëjëf jërëjëf sëñ bi jërëjëf di ziar waa Touba bu baax a baax leen tam dokkal ci màggal bi yàlla nañ ko def ay at yi at mbokk yi ko xam naa foofu lañ koy yemale waxtaan wi euh, di leen tam jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg teewlu bi jaajëf Abdou Thiam bi nekkoon ci machine bi ba ëllëg incha allah asalaamaaleykum set set, up and low. C'est ni musique ah. e publicité sur RFM Cabinet de voyage privé leader au Sénégal dans le domaine de l'orientation et de l'accompagnement pour les étudiants qui veulent avoir une préinscription à l'étranger et aussi pour les personnes souhaitant avoir une assistance visa de A à Z pour la France, les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, Dubaï et beaucoup d'autres pays du monde. Vision Plus Voyage nee salarié, kat di pour am visa touristique commerçant yi mu visa Schengen wala mu un commerçant yi pour ngeen mën a dem Chine ak Turquie yéen étudiants yi nga xam ne da ngeen bëgg a à l'étranger Y professionnels yi entrepreneurs yi fonctionnaires yi yéen ñi nga xam ne kat da ngeen bëgg a ji ba Canada ah ñun ñooy Vision Plus Voyage suñu taux de réussite ci demande de visa mi ngi toll ci 85 Vision Plus de les proposer tamit ay billets d'avion en promo Noël jusqu'à moins 20 en plus de vente de voitures ak location le mot vision plus automobile vision plus voyage de l'un du à assurance voyage réservation de billets d'avion réservation d'hôtel ci ay yu amul hébergement colocation contrat de bail à l'étranger suñu siège social n'y a nekk rond-point cité cœur immeuble et l'âge Fali Loulo, Djano ak Ou 77 409 05 77 Ou le 77 597 18 72 Ou le 77 818 26 26 Ou le 33 899 68 40 sous une succursale immeuble Sode Mariem ci deux voies Liberté Sissi, jano à 833 75 75 ou le 77 127 19 19 ou le 33 860 60